wax li ci c'est un tissu de mensonge on n'a pas vu la couleur de l'argent Nous avons ay problème depuis le départ Nous sommes ñuy loger 5h du matin on nous demande de nous réveiller à 9h-10h. Nous ñu jugee tournée permanence lañuy nit ñi les filles qui habitent à Mbao comme Magendao mom moy fay xalissam ak risque yi muy am yépp mu jël ko dem joxuñu ñu un million gisuñu peur jom lekkuñu sax bay gis loolu lekkuñu sax bay gis loolu c'est la moy réponse bi gëna a dama né ñun waruñu tok di xaar euh, ma dikke 2019 def démenté ñun ay jeunes lañ ñun ay journalistes la ñun on a un une carrière à préserver dañu am famille am njabot buñu téggé yenn yo xamné ni ay aki fausse accusation la ñun dañu war a jug ni kii ma ndee la Madior Diouf li mu wax dara amu ci on a entendu le ministre de la le, la, le ministre d' état Habib si dire que xam nañ ndee la mais xam ko du tere bu ñu tegee tuuma ñu weddi ko bu fekkee du waxkatu dëgg tey de lii mu wax dañ koy dolli ci ñàkk a wax dëggam googu